Adja ba tey rek Sele Mele le champion d'Afrique le Sele Mele le champion du Sénégal ki nga xamante ne sigil na Sénégal gàcci ngaalaama amul lu muy euh, prouvéti ci wàllu tournoi CEDEAO ki nga xamante ne Sele Mele depuis 2016 2017 ak 2018 mu représenté Sénégal Sele Mele aussi laataa ñuy gën a ñu laaj la foofu aussi première convocation équipe nationale nan la dikkee waaw man boo xoolee quinze ans lañ ma njëkk a woot équipe nationale bi ma ñëwee maag Cheikh Tidiane ñaar ñoo doon xëccoo quatre-vingt-six kilos mooy bi ma koy daan Fatick aller retour bi noonu Ambroise woo ñu ñëw parce que équipe nationale cinq litres la ñu yóbbu mais dix la ñuy doon maanaam dañu xool si ñu ngi gën a doylu rek ñu yóbbu leen waaw bi ñu demee aussi ñu dem ba nga xamante ne war nañu euh, tànn ñu jël ko ma gérer xam ne tamit du sama yaafus quoi. Mm. peut-être moom la gën a choisir. ma dem ma ñibbee moom après woo na ma téléphone. Mm-hmm. ne ma bul décourager dem parce que nekkul na yow da nga yaafus. Mm-hmm. moo tax jëluñu la. Mm-hmm. ma ne amul problème. yàlla ba mu defee tamit aussi déen 2016. ñu war a dem da fële Niger. si la ma jël boobu maa ngi doon 96 kilos. motuma sax 100. mu ne ma ndax di nga mën a bëre 100 kilos fekk may jël di jël dra di jël ba jël drapeau moom. si mbapat yi 2016 boobu ma lay wax. boobu wooguñ ma équipe nationale ma ñu ngi ko tëggee woon Dakar. Hmm. drapeau Ambra Sarr. Hmm. teg la naa trois fois yoo xam ne nii mbapat lu ñu teg maa koy jël. Hmm. mu woo ma ne ma nag ah essence yi de nu ñuy dem ñaame mu xool poids bi mu ne ma mbaa di nga mën a bëree 100 kilos yi ma ne la xanaa seetaanoon ni may def ponkal yi mu ne mu reetaan ne ma waaw loolu kañ xam naa ko. si la ma jël man rëg rëg Cheikh jaan ñaa Moussa fay comprendre nga mhm. ak Omar Diouane mhm. mooy équipe boobu moo lay wax noonu mhm. yàlla def tamit bi ñu demee ñu jël lépp indi ko moom laa lay wax benn individuel rek lañ si ñàkkoon muy individuel boobu waaw boobu laay doog a dem drapeau CEDEAO muy 2016 2017 aussi dem na 2018 dem na euh, convocation yooyu yëpp c'est le ñu xool ne aussi nga doon champion boo xamante ne représenté euh, cent kilos ci compétition bi bëre nga ko euh, Niger am foofu final nga ñëw Sénégal aussi confirmé waat demaat aussi jeux olympique demaat jëlaat ko mele ku waajal ko euh, compétition yi nan nan la doon demee. waa métti rek parce que 2016 boo xoolee say say naataangoo la ñu woon ku su mel ni am xam nga ndaanaan la. Mhm. comprendre nga Franc ak Reug Reug ñoo nekkoon ci 100 véhicules yi. mu doonoon compétition bu méttee métti métti parce que yow ku ci affaire bi kumpa lay doon si yow xamoo ka la ñu war a jël il faut boo fa wanee yaafus rek doo doo dem jour boobu laay doog a am ndengeeñ si compétition boobu man dama doon man dama doon bëree ba pare duma ma sax sama nopp tàng mais compétition bi dama contact contact contact ba sama nopp bi ndengeeñ ba newi mhm. barki alxuraan mu wane mu wane ne kon compétition boobu yombuloon woon te demaguma comprendre nga. moo tax foofu boo fa wanee yaafus tuuti. dañ la fay bàyyi. ku am joom rek lañ fay soxla. waaw yàlla defoon tamit ñu tànn ma si. tànn la ci nga dem boole ko ñetti at yoo xamante ne daanuwoo ci sa catégorie cent kilos aussi loolu aussi ci waa wàllu convocation yooyu aussi tey jii ndax gis nga ci sa bopp bi ngay ñetti at yooyu nga xamante ne dem nga ko dem dem sigil Sénégal. moom laa lay expliqué nee naa la chef de nationale ñun leen rek lañ si am mooy lu ñuy gagné. du recevoir du dara gis nga boo xasee ba ñëw ba wàcc si aéroport bi taxi sax bi nga taxi sax yaa koy jëlee sa bopp. taxi yi taxi taxi bi nga kenn du la yóbbu sa kër demul woon taxi sax yaa koy jëlee sa bopp nga dem pare nañ ci yow boo xasee ba agsi ba wàcc laa la wax aéroport bi laa la wax kii day staff bi day jaar nii mbër bi jaar nii mbër bi jaar nii nga ñibbi te buñ la soxlaa boo ñëwul ñu aj la comprendre nga. kon loolu war nañ see gën a xeex man demoon naa ba créer benn groupe boo xam ne groupe équipe nationale laa ci defoon parce que tey jii ni ñun war nañoo toll weesu fii war nañ dem ba tey jii suñu bëggee tukki wallaahi du jafe su ñun dañuy dem ñaan ñu may ñu parce que ay mburu équipe nationale lañ comprendre nga. mais ma yaakaar ne amoo leen jafe tukki tukki ku mun a dem représenter Sénégal ci wàllu bëre ci biir continent Afrique tey jii ngeen di yéeg ay avion ma yaakaar ne war ngeen mun a am seen visa wala ngeen am seen passeport diplomatique affaire yu mel noonu tey jii. visa bu weesoo passeport si nga yem te normalement boo ñëwee war nañ may visa tey foo bëgg a dem ci àdduna nga dem fa mais tey jii pour nga dem équipe nag pour nga dem bu rëy la te loolu équipe bi man ñooñ laa ko naa ko sas parce que tey jii ñun tamit si si lañ bokk parce que mbër yi tey bu ñu déggoo woon doon benn lépp lu ñu xeex dañ koy am mais ba ma créé group boobu sax laa la wax te lu gënoon tax loolu la tey di bu ñu bëggee loolu mu yomb ñu mais ñu si bëri faralaatuñ duñ dugg sax ba vocal duñ dugg ba wax si ma xam ne ñii lii li may def nii ñoom xamuñu ko si laa jël group bi ma tëj ko parce que alxuraan parce que tey jii ñun kon li ma wax équipe nationale waroo faa jógee dem di ñaani visa muy doon lu jafe si yow mm-hmm. waaw mais problème bi dama yaakaar ne yéen a ko mun a jooytul seen bopp tey jii nga xamante ne tey jii euh, épique nationale bu la soxlee yow boo demul dañ lay alam dañ lay acc mais yow aussi boo demee aussi li nga bëgg à satisfaction cent pour cent wala quatre-vingt-dix-huit pour cent munoo koo am tey jii mais tey il est temps pourquoi pas yéen ngeen lancer appel boo xamante ne tey jii sport sport la nu ñu ko mun a waxee tey jii ku wax épique nationale football mbaa basket baseball ay rugby yooyu tey jii bu ñuy dem. bu ñu ñëwee bu ñu gañee bu ñu demee jëli ndam ni dañ leen di prime dañ leen di prime ay kër jox leen xaalis Macky Sall recevoir leen tey jii est-ce que jotul aussi Macky Sall boole leen même boo leen leen ma mi gën leen a boole à 100 pour cent ba tey jii boo leen dematee tey jii représenté ji dem ci xare ba indi ndam li tey jii est-ce que jotul ngeen am ay seen passeport ba fu ngeen bëgg a dem ngeen dem tey jii. loolu lu koy indi yëpp mooy ñu déggoo doon benn parce que tey jii nii ñun suñu doonul benn suñu xol yi bu ñu ko yaatalu doon benn loolu du mos am. tey mbër yi ñu si bëri tey ku si mel ne Auguste man man lu may seetaanum ay affaire am lu bari parce que xam naa moment boobu laay doog a ay làmb yi mhm. mais moom blessure am lu ko bàyyiloo làmb si ci équipe national la jóge parce que boo xoolee moom blessure bu mu amoon ci genou mhm. moom moo tax tey jii mënatul dara am man dara mhm. te boo xoolee ba léegi nii carrière dafa yàqu ci loolu mënu laa wax ne lii la ci am ci ci ci kii bi équipe national te représenté na Sénégal fu nekk xam nga kon moo tax gars yi war nañu gën a gëstu équipe nationale bi bu ñu nee équipe nationale rek dafa jeexal wax mais yow mbaru équipe nationale boo xamante ne nii yow nit ñi dañuy yaakaar si yow lu nekk ay million boo jógee fële ñëw xoolal doo am sax loo tabaxee sa kër loolu rafetul comprendre nga loolu war nañ si gën a veye war nañ si gën a waxtaan ak président de la république mu geesu làmb parce que premier sport du Sénégal làmb la tey jii bu ñu nekk ñan ñoo dàq bëri ci Sénégal ci monde bi kenn mënu cee génnee Sénégal comprendre nga mm-hmm. waaw kon moo tax war nañu gën a geestu surtout équipe nationale bi mm-hmm. même ñun suñu suñu ay sax mën na am jeex na fa comprendre nga mais boo yi nga xamante ne ñooy ñëw mm-hmm. duñ ko amul sax ñoom ñu am ko te équipe ñu fa jaar yëpp wallaahi bu bëree ba bëri si 30 personnes tey ji 30 bu leen woowoon 30 personnes ñi jaar équipe nationale ay ñoom Fodé ay ñoom ay ñoom Moussa kii nu mu tuddati kii booy bu dëkk Palmarin Seex Seex Njaay Seex Njaay boobu nga xam ne équipe nationale lu ne def na ko fa te xoolal tey te ak catégorie goobu mu am équipe nationale rek la mën a amee loolu moom mën naa ne tey équipe nationale amu ci dara mhm. te waroon na cee mën a am tey kër goo xam ne boo rombee ñu ne fee mooy kër Cheikh Ndiaye mhm. ñu xam ne kii équipe nationale la ko jëlee mhm. coono bu nekk daj na ko fa te amu ci tus muy Moussa Faye xam nga ñoom uh, Omar Diallang ñoom ñoo ngi yooxu dem ay waaw parce que xoola Omar Diallang tey boo xoolee tey ji médaille médaille am yi lu mu yor tey da koo rangale nii da naan lii lii lii lii est-ce que kii ay médaille dong la am est-ce que kii lu mu jël si équipe nationale yëpp tey jii waroon naa mën a wane këram goo xam ne dañu naan xoolal këru Omar Diouane bi mhm. mais di wane ay médailles yoo xam ne yow balaa ngay naan balaa ngay ak seen kër médailles yi day xóor mhm. médaille d'or bi sax day ko tuddee ko dégg rek de mhm. ay weñ la ak ay arme ñoo yoo xam ne kenn xamul lan la barki alxuraan mënoo koo jaay mënoo koo def dara souvenir pour sa doom si maggee nga ne jaaroon naa équipe nationale mhm. wax dëgg si yàlla war nañoo gi war nañoo gën a gëstu mbëru équipe nationale yi mhm. ba ëllëg mbër bu ñu si woo doo am dara looy dute lu dul yàkkamte dem mhm. mais xam nga tey su demee ba équipe nationale mbëri dem ñu leen naan foofu bu fa dem dalay tardeloo xam nga amoo fa dara ordinateur maa moom quatre-vingt-six cent kilos yi man maa moom la ñu woowoon 2016 euh, mais moom dafa bañoon na di ñëw parce que li ñu ko doon gëmal si xelam boo fa demee dañ lay dawloo wàññi say poids te doo fa am dara mu toog gars yi aj ko aj nañ ko fi xaw ma huit mois xaw ma six mois yoo xam ne bëriwul. Mhm. mais loolu noonu bu demee bay am kon équipe nationale war nañ xoolaat seen bopp. Mhm. waaw sële loolu leer aussi ah, ñu ba tey te aussi say supporteurs amateurs yi ba tey aussi ñoo ngi xuy ñoo ngi jooytu saa su ne. Sele Mele géej ñaa am combat Sele Mele géej ñaa am combat coow li coow li aussi borom dëj bi mooy jooyal boppam dëjam tey jii ñàkk komba bi wala gij a bëre combat bi feebar bi da cee bokkoon wala nu mu fa demee. non non sax peut-être xam nga mbërum mbapat yi dañoo xaw a am problème ci côté dóor bi problème bu ñu am mooy maanaam ñun problème adversaire la ñuy am parce que boo déggee tey mbaru yenn mbaru Dakar nga ne ko comme ku ci mel ni armée nga ne ko seleme na lañ la bëgg a jox mu dugg xool ay kiyam ba pare dajeeg benn waaye mu ne ko yéy seleme ne nga daan na ay rëg-rëg daan na ay franc yow loolu rek dalay dawloo comprendre man am na sama benn copain nee na booy boo leen waxee mbëru mbapat yi mhm. comme ça nii ak si écrit bi ñu leen mbëru mbapat lañ la boole la naan yow dama jël ko man dinaa jël kooku mu may gaari xalaatuma ko xam nga loolu tamit neexul te ñun ay mbër lañ compétition bi dañ koy def rek pour euh, maanaam gën a gën a tàggat yaram bi bañ a toog mhm. parce que sportif moom warul di toog lu bari mhm. compétition rek rek mais ñun duñu ay mbëru mbapat ay buñ nee mbëru mbapat day mel ni kon si loolu rek la ñu yem mais ay mbëru arène lañu ay mbër lañ mbër lañ comme mbër yi di bëri arène mais des fois damay dégg baat boobu ñu naan mbëru mbapat mais ñun ñu ngi bëri arène di bëri mbapat man maa ngi 10 combats. diis combats 10 combats bëri naa ko. Euh, Bébé Saloum 2 laa mujjee bëri euh, Mbour lig ni ko laay ko tëggoon. Hmm? Mhm. bëri naa ak Jordan Mbour. Mhm. bëri naa ak euh, kii général Diouf. Mhm. ñooñu ñëpp bëri naa ak ñoom grand combat. Dakar bëri naa fa deux combats Kaolack bëri naa fa deux combats. comprendre nga. kon ñun lan la ñuy lan la ñuy bañe ñun lan la ñu lan la ñu war a bañee tey. mais mbër yi ngay yéen nag waroo leen am jafe-jafe combat ku dem ba bëri 10 combat nag tey tey di waroo am problème adversaire 10 combat bëri naa ko 2019 laa gëj a bëri ba léegi problème adversaire promoteur yi chaque jour da nga leen di woo ñu woo ab benn mbër ne la mbër boobu ñoon daal Sélé yow xam lu leen njëkk a wax yow Sélé lan moo tax nga jafee utal adversaire man mbër bu ma wax mu ne ma non kooku bëriwu ma ak moom mais ñun kon nan la ñuy def kon est-ce duñ toog sax bàyyi ba ñu bëree di ko déet ah, gaa yi mbëru aari nangu ñoo jël wala mbapat yi mbëru mbapat yi jëlante seen biir parce que ordinateur mu ngi nii daaw jéeg la gëj a bëri xom wala daaw daaw waaw benn combat la am ba léegi ñu ngi koy wëral adversaire mënu koo am mais loolu loolu tamit kon léegi ñun kañ la ñuy doon champion mhm. loolu tamit neexul quoi. mais tey jii ñoom war nañ leen mun a may ndaxte ñoom aussi fu ñu jaar aussi dañ leen may ba ñu egsi fi ñu fi ñu egsi tey jii kon tey jii seen adversaire yi adversaire yi nga xamante ne tey jii boo doon lim ñi nga xamante ne moo nekk sa kanam tey jii nga xam ne boo leen munee ñaan tey ñu may la sens ñan la ñu. gis nga maanaam mbëru mbëru mbëru aaree mhm. ñoom yoon la ñuy wut. Mhm. yoon lañuy wut ba àgg àgg fu ñu fu ñu si kaw. Mhm. te làmb ji du moytu gis nga boo daanu champion doo doon champion. nañ jël champion yi parce que ñun mënuñoo dindi champion ñuy mbëru équipe nationale jaar fu nekk loo xamante ni def nañ ko sax ñoom defuñu ko. Mhm. comprendre nga mhm. kon war nañ mën a jëlante. Mhm. armi maak moom combat la. mbay guy gi mi dem di jë daan armi keroog. buñ ma boole woon tey maak moom suba suba ma bëreeg moom. buñ la joxee avance mbay guy gi nga. général Malick la doon bëreel. du Bour Sine. waaw Bour Sine am defet ci la jóge na ma yëkkati ko may ko chance ñu bëri. Mm-hmm. waaw parce que mais ñun ay adversaire lañ. Mm-hmm. pare nga ko mayu sens. am na benn garaam bu may romb keroog bu may naan Ousseynou la man yooyu noonu ma ne ko ma woo ko ne ko woo ko téléphone mu woo ko naan kon Selem ngi di dem entraînement nee na yow la soxla mu naan non Selem maa ko mën du ragal la du ma moromam xaw ma kan la gis mu ne rakk garaam bu ñëg bi la gis mu daan ma ne ko déet. yaa ngi juwaat la de kooku est-ce que du petit sele ma ne ko petit sele peut-être xam naa loolu la gis rek comprendre nga mais maak moom combat bu neex a ngi noonu mhm. promoteur yi nañ ko tëgg mhm. Bour Sine waaw loolu combat la waxatuñ loolu hmm. waaw que pare nga ko waaw déggoo li ma la wax xanaa <laughs> man amul ku may tiit si laa ah, ku may ragal déggoom laa na doon bëri rek ñu ne mën na bëre mun mhm. bëgguma sax combat ay combat voilà voilà combat yomb combat dër bi laa bëgg combat bi ku damaa bokk si làmb bëri nañ bëri nañ parce que tey soo nekk fii di lim da ngay juum bëri bëri nañu quoi champion yi nañ ñëw ñu bëre may ñu chance ñu bëre. mais mun ngaa bañ a juum mais mun ay cinq adversaires yoo xamante ne tey jii. ñu ah tàng ñu tàng tey jii war ngeen neen mënu a lim ñu may la chance nga mun a. xam nga tuddeel naa la Boursin. Mhm. Ah, nee naa la armée. Mhm. nee naa la mbay guy gi. Mhm. ah Coins. daan naa ko mbapat nañ ñëw jël revanche comprend bëri na si tey ñoo xam ne war naa leen bëreeg ñoom ci arène bi bëri nañ waaw loolu leer aussi euh, xanaa buñ ko déggee ñoom dinañ ñëw euh, acca laal avance. Dame Sène mi wal kan la war a bëreel kii Jackson wala. waaw Dame Sène Dame sax ñoom ñaar ñooñu ku ci daan na ñëw ñu bëri par euh, tey samp nga say. ku daan ak ku ci daan yëpp sampal naa la. Mm. waaw. waaw acca kon dégg ngeen ko nu mu ko waxee ñu ñëw aussi ba tey su journée le ki nga xamante ne sa rakk aussi war na cee mun a bëreet aussi Jax production moo woote journée boobu ki nga xamante ne aussi gàcci ngaalaama à Jax production ki nga xamante ne moo ngi jël mbëru mbapat li simple di leen di yéegal échelle bi comme ça ñu mun a fekk ci seen morom yi nga xamante ne peut-être raw nañ leen tuuti loo mun a wax ci Jax ko nga xamante ne moo ngi sigal mbëru lit simple yi. waaw Jax moom dañ koy jaajëfal rek parce que boo xoolee mu ngi yëkkati mbëru simple di leen tëggal combat comprendre kon mën naa ne ñun sax instant ñu ngi doon jooy promoteur mais jooyatuñ ko. waaw di ko gën a ñaan rek di ko gën a tàllal loxo mu jàppale mburu mbapat yi parce que gars yi léegi dañ leen di beddi te mbëru mbapat yi mën nañ bëri am nañ supporter mhm. booy léegi dañuy indi supporter parce que Jackson lu tax mu tëdd si nii rek am na lu mu gis mhm. combat ñun suñu kombaat ñaata dañuy indi ay dañuy indi supporter dañuy indi lépp dagg bolog jël bolog yëpp gars yi jaay ko mhm. comprendre nga waaw sama rakk tamit Petit Sélé maa ngi koy ñaanal le quart incha allah yàlla may ko ndam. Tony mii tamit am na combat. comprendre nga moom mbaytin man tamit maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam parce que boo yu ma déggal lañ. maa ngi ñoom ñooy nekk fii. ñooy dem dañu mel ni ñoo ñoo ñoo foondoo ñoo defandoo lépp ñu jox ma cër. comprendre nga maa leen ñaanal yàlla defal leen ndam lu sedd guy. waaw kon sa dernier appel lan la. waaw di wax rek Sénégal ñu gën a gëstu làmb comprendre nga waa CNG aussi ñu gën a góorlu tamit gën a gëstu mbër yi parce que bu ñu fi nekkal seen bopp rek wala ñu nekkal fi mën promoteur yeeg mbër bu mbër amuloon woon làmb du am comprendre nga mbër yi ñooy lépp kon nañu gën a gëstu mbër yi def leen ay nit ñun ay nit lañu dañuy teral di bëgg a suñu waajur yi comprendre nga tey buñ ñu jëlatee yóbbu ñu fu ñu mënti yóbbu nañ ñu nañ ñuy teg si ay conditions yu baax loolu mooy yoon mbër yi instant yi nii ngay mbër bu bëre ba bàyyi bëre du ci am dara ndax lan jaar naa fi jaar naa fi ak ay médailles loolu tamit. Mm-hmm. loolu war nañ ci gën a veiller quoi. Mm-hmm. waaw loolu daal lay lancé ñi nga xamante ne ni ñoo ngànk ak lu làmb. Mm-hmm. comprendre nga tamit président de la république aussi ne gestu làmb. ak mbër yi nga xam ne dañoo nekk ci kaw tamit. ñuy gestu seen rakk yi nekk ci suuf. parce que làmb loolu la quoi mayante loxo la ku ñu fi may loxo doo jóg. comprendre nga. Mm-hmm. waaw loolu daal laay laa si àdduna yëpp. Mm-hmm. di ñaan yàlla yan na yàlla def jàmm ci réew mi. Mm-hmm. waaw parce que tey réew mi des fois gis nga yëngu yëngu yu muy am nii mosul am. mais di ñaan yàlla yan na yàlla lépp seddal yàlla seddal lépp. ci barke Seydina Mohamed. jaajëf jaajëf.